candidat hmm. à l' présidentielle. wax ne mandataire am dafa dugg. nga xam ne waaw dafa dugg. te muy citoyen Sénégal. muy citoyen Sénégal. léegi Sénat ba woon bëgg rétablir candidat boobu dans ses droits. le même jour ñu dagg bopp bi ak décret. le même jour ñu jëlee magistrat conseil constitutionnel dugal Sénat le même jour mais loolu kenn mësu ko gis. Mhm. ñu dem conseil constitutionnel ñu ni dossier Ousmane Sonko c'est pas recevable parce que dafa am condamnation définitive alors qu'il est dans l'église alors que procédure de radiation la ñu waroon dugal hmm. te xaju fi parce que day am ay délai de recours ak yooyu euh, deux délais de recours parce que cinq de cinq jours de notification bi ak en cas de de de de décision du du du tribunal d'instance hmm. ñoom ñu mën a am possibilité dem cour suprême loolu yëpp jaaruñu ci ñu jéem a xañ un candidat mu bokk. Mhm. gis ngeen ni ñu def ñoom Abdourahmane Diouf ñoom Bougane ñoom Mimi Touré ñoom tous les candidats yu ñu bëggoon éliminer mais gis ngeen également mhm. des candidats de paille yoo xam ne da ñëw jàll allègrement sans problème yoo xam ne kenn xamul leen. Mhm. amuñu sax benn poids politique donc ñi ñu bëgg a jàllale jàllal nañu leen ñi ñu bëgg a téye nañu leen may fàttali rek ni. candidat Benno Bokk Yaakaar yëpp jàll nañ de ak ñoom Aly Ngouille Ndiaye ñoom Boun Abdallah Diaw ñoom Bamboy Diaw ñoom ñëpp jàll nañ hmm. plus maintenant seen i satellite mooy ñi nga xam ne bon bugguma leen sax tooñ mais yéen ñëpp a xam ñi am nañu jàll ñoo xam ne vraiment am nañu leen ëppoon mérite te ñu retenir leen hmm. kon Sénat tey jii bu ne processus bi jaar na yoon moom day discrédité boppam hmm. moo tax ma ne nit ñi fu mu nekk nii ñoo war a exercer seen seen seen vigie citoyenne pour sécuriser vote bi parce que mënuñu yaakaar ci Sénat bu bees bi mënuñu yaakaar ci DGE mënuñu yaakaar ci conseil constitutionnel bi jéem a ay candidats qu'en sera t de la commission nationale de de recensement des votes nga xam ni président cour d'appel moom moo koy présider te cour d'appel may fàttali moo yokkal euh, euh, Mame Mbaye Niang deux mois ba six mois parce que deux mois la ñu condamné woon Ousmane Sonko en première instance cour d'appel moo moo ko yokk ba six mois même si la change de président Macky Sall mooy tekki fee nekk tekki fee nekk moom mooy présider commission nationale de recensement des votes PV yépp ci loxoom la ñuy tàkk est-ce que xam ngeen loolu. oui. yéen a ngi fàttaliku euh, euh, l'ancien président de la commission nationale de recensement des votes Demba Kandji bi mu bañalee euh, Déthié Fall ak waa Sénat ñu ñu tijji urne ñu jóge Fuuta parce que ñëpp dañu suspecté woon mhm. bourrage mu ni kenn du ko fi tijji te loi électorale moo may assesseurs yi ñu tijji urne yi pour vérification bu ñu amee ay ay localité yoo xam ne seen xel def ci tey am nañu droit def décompte mhm. devant Euh, euh, la commission nationale de recensement des morts parce que décompte ak dépouillement du benn donc loolu mais dañu leen ko bañal tey jii ki nga xam ne instance bi nga xam ne moo yokkal Ousmane Sonko penam pour rendre ko inéligible mais kooku moom mooy mooy mooy saytu bulletin yi yi ñuy publier mooy def mooy proclamer les premiers résultats résultat provisoire yooyu moom rek le conseil constitutionnel di di confirmer mhm. parce que recours yëpp ak lu ñu fonde fondé fondé fondé l'habitude est de les rejeter systématiquement dañuy yoonal rek pour wan ne nii ñi am nañu droit de recours mhm. def nañu recours ci Fouta def nañu recours ci fii def nañu recours ci Touba def nañu recours ci fii après ñun woy rejeté nañu tel recours tel recours tel recours mhm. proclamons lii lii lii mu war a nekk nag loo xam ne dañ koy institutionnaliser day nekk dëgg. Clédor. oui kooku ngay wax noonu bi ko tegee euh, cour d'appel ñu bëri nee nañu le président Macky Sall préparerait euh, la présidentielle mais ci commission d'enquête parlementaire bi wala accusation yi euh, ci euh, conseil constitutionnel sur ces deux membres là am nañu jàpp ne xëy na objectif bi mooy fexe seppi ñaari juge yooyu nga xam ne ñëpp seede nañu ci ñoom ngor mandu mais aussi fulak fayda ndax Cheikh Tidiane Coulibaly moo setaloon président Abdoulaye Wade 93 ba ñu ko tuumalee alors est-ce que ñi jàpp ne euh, seppi ñaar ñooñu la ñu bëgg pour que xëy na euh, teg fa ñeneen ñu leen arrangé ñooñu mun nga jàpp seen xalaat boobu que ni lu taxaw la. non moi je crois pas man daal li jàpp mooy. Hmm. Euh, Macky Sall dafa mere conseil constitutionnel. ci candidature Diomaye bi jàll. ak ci candidature euh, Karim bi tey. ok waaw daf leen ci mere rek. man loolu rek laa jàpp. Ah. vraiment. kon sanction la am. mais mais mais raw na sanction. mais su nekkee ay manœuvre la d' abord. Uh-huh. pour discréditer. le tout le conseil constitutionnel. parce que boo ci jëmee kenn institution bi yëpp nga jëm. waaw te loolu warul jógee ci président wala président di ko dooleel. loolu je je crois que mosuñu ko gis de un président qui affaiblit une institution. ñoo xam ne yow yaa leen nommé yaa leen seet ba mu doy la. est-ce que du ñii ah. man est-ce que du loolu moo tax APR commencé def euh, deltu ginnaaw tuuti. ci yëf yi tey on s'attend non non deltu gannaaw bi c'est pas traduit en acte parce que tey jii. Mhm. ñoom ànd nañu ci ci ci votu euh, euh, commission bi. commission d'enquête parlementaire bi. yaakaar ñoom ànd nañ non wax wax nañ ko ñoom ànd nañ ci. taxawu ànd na ci. d'accord dama grande surprise yeewi ànd na ci. ak yeewi oui. donc am na unanimité. Hmm. donc euh, li ñu communiqué ni euh, kii la rek c'est juste de la communication. Hmm. mais dans les actes c'est pas traduit. parce que bu doon loolu ñoom dañuy rocceeku ci dynamique gu euh, comme ça banquette bi ah mais seen loxo ngi ci ba léegi. Hmm. donc plus maintenant. le procureur qui ignore la plainte loolu dafa yéeme de le procureur qui ignore la la plainte d'un d'un collègue pour diffamation ci contexte wu mise wu commission d'enquête parlementaire nga xam ne instruction plainte boobu ça arrête les travaux de la commission. ban ban procureur la doon procureur la général. procureur de la république. Ah, procureur de la république donc. léegi léegi léegi léegi léegi loolu euh, day permettre commission d'enquête bi mën a continuer travaux loolu warul jóge am na internaute bu la posé fi benn question ñu jottali ko ko Souleymane Diédhiou euh, mm-hmm. nee na une question pour monsieur Clédor euh, pourquoi Benno Bokk Yaakaar n'a pas fait un communiqué pour soutenir son candidat mais ils ont fait un communiqué pour soutenir euh, les accusateurs le PDS waaw euh, c'est une bonne question parce que euh, incohérence su démarche bi dafa parce que cette démarche ça vise Amadou Ba lui day rek euh, à monsieur Diédhiou à travers monsieur Diédhiou à tout le monde que Benno Bokk Yaakaar se bat contre son candidat qui est Amadou Ba hmm. Macky Sall se bat contre son supposé candidat ci Amadou Ba. mais pourtant vice-présidente groupe parlementaire Benno bi nee na ba ñu indee exposé de motif bi ñoom ñëpp ànd nañu ñaawlu accusation yi ñu teg ci kaw Amadou Ba. séance tenante waaw léegi mais buñ ko ñaawloo dañu war a logique bi mooy ñu désolidariser ñu bañ a ànd ci commission bi. bañ ànd ci commission bi. parce ah, que Amadou Ba pour l'intérêt Euh, général bëgg nañu xam lan moo fa xew. ñu édifier le peuple aussi parce que parce que tey parce que buñ ci opposé woo dafay dunduru leneen. Mm-hmm. voilà parce que tey maa ngi dégg euh, euh, vice présidente bien sûr euh, seen groupe di wax naan ñoom li tax ñu gën a soutenir lool parce que dañoo bëgg a setal. mu leer oui nee nañ bëgg yëf yi leer. teggi tuuma ñu conseil constitutionnel mm-hmm. waaye. setal seen deru candidat ñoom loolu la ñuy comme ça aussi Clédor non. waaw xam nga politique nag dafa sew <laughs> on peut voir des choses comme ça mm. mais loolu c'est permettre la commission d'arriver à son terme parce que de toute façon euh, yéen ñëpp a bëgg a xam mm-hmm. lu xew ñun ñëpp bëgg a xam li xew bëgg xam Sénégal yëpp a bëgg a xam ndax y a eu corruption ndax y a des preuves concrètes qui le prouvent mm-hmm. et le cas échéant on devrait en tirer les conséquences mm. et si c'est pas le cas on comprendrait pas l'attitude de Macky et de Benno Bokk Yakaar et, et ni du PDS mm. même du PDS on peut comprendre parce que candidat am dañ koy invalidé mm-hmm. injustement mais Benno Bokk Yakaar ak président de la République duñu comprendre seen attitude bu mm-hmm. donc lii dafa war a leer ñu ñëpp am kumpa pour yàkkam ci xam lan moo nekk ci suuf mm-hmm. parce que tudd nañ ci ay nit aussi tudd nañ ci ay Amadou Ba ay Farba Ngom ay Abdou Latif Coulibaly ay ñaari juge constitutionnel xam nga te xëy na fan yi sax turu turu benn homme d'affaires bu mag daal di génn. yaa ngi koy wax rek wax naa dañu fellal au moins ci turu ko <laughs> fell damay bañ a damay bañ a tooñ. Eh. damay bañ a tooñ. donc loolu euh, loolu ñun yàkkamti nañu xam hmm. aboutissement am yàkkamti nañu xam aboutissement am.